HCCT ak conseil économique euh, social et environnemental sa lecture d'abord bu njëkk par rapport ak cette décision bi nga xam ne maa ngi koy wax Michel Sang promesse la woon ci dig yi nga xam ne joxe woon nañu ko bi ñuy bi ñuy amal seen campagne. soxna Calal da nga euh, ni koy waxee sax da nga mm-hmm. génne sama sama lanc <laughs> parce que loolu laa doon bëgg a wax. Uh-huh. Euh, le président Ousmane Sonko ay mm-hmm. fait un promesse moom ak Diomaye. je dis dama ko bëgg a préciser quand je dis Sonko je le dis tout le temps c'est Diomaye quand je dis Diomaye c'est Sonko je ne fais pas de distinction entre les deux ça les faits sont là pour le prouver mais xam nga su fekkente dënk da nga ñëw nga def une promesse une promesse électorale pour qui connaît Ousmane Sonko ah bu defee lii man duma bett kon nag ku nekk am nga sa interprétation mais ce qui est sûr moom euh, il a toujours les pieds sur terre euh, on lui a reproché un peu le cooki mais bu ñu fàtte ne euh, quelqu'un me le disait dans ma proche dans ma proche famille il me disait tout à fait aussi biir métti di en 2021 il me dit c'était mon fils pas est-ce que tu as bien regardé Sonko am na benn foto boo xam ne il a fait comme ça le combat mais loolu moo ko si jële ce régime-là qui était là bien ancré depuis 1960 parce que je parle du système su fekkente woon tey jógul pour jóg yi noonu. du mës a jël pouvoir bi. il l'a échappé belle moo tax ñu ne yëfi yëfi yàlla la yàlla dugal na ci loxoom parce que moo na gën a gën a metti moo na gën a metti lool mais yàlla def ñu ñu si fii tey c'est par sa pugnacité c'est par son courage c'est par. Euh, comment na laa ko mën a wax euh, son amour de son peuple mm. son amour du sénégalais moo tax mu jaral ko lu ne j'ai pas besoin de développer parce que gis nañ fi mu jaar yëpp nee naa l'itinéraire de du président Ousmane Sonko doy na njàngat tant sur pour les pour les jeunes surtout pour les jeunes mm-hmm. que sur les les les les mag yi Pastef les mag déjà laay wax sax les mag que nous sommes parce que njàngat la nous sommes là depuis man je suis là depuis Senghor alhamdulilah Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade et euh, Macky Sall. Mm -hmm. mais de mémoire de politicien nous n'avons jamais vu un politicien aussi coriace. Mm -hmm. aussi résilient que Ousmane Sonko donc Ousmane Sonko dañu mën jël ci moom référence. ça je le dis hein haut et fort c'est une référence les gens le diabolisent c'est normal parce que moom c'est le euh, le le c'est le l'arbre à abattre malheureusement parce que deful dara. li mu def mooy il s'est battu les mains nues amul woon dara j'ai dit c'est la puissance publique qui était là avec tout son arsenal bañ si woon dara nag bu fekkente côté hargne euh, la côté méchanceté mais côté dictateur mais ça moo nekkoon le régime précédent hmm. qu'est-ce que nous n'avons pas en euh, comment lu dit ça lan lañu lan euh, kiiwul dajul lan la ñu dajul de 1921 euh, de 2021 à 2024 c'était horrible pour un État démocratique il aurait pu être beaucoup plus élégant dans sa démarche je parle de Macky Sall il l'a pas été donc ñun bu ñu gisee loolu man on a on a vécu euh, a vécu Senghor et Abdoulaye Wade à la limite comme doomu bàjjen la ñu woon Ndiombor kii na ko kii nekk jombor jombor ba sa bopp eh, ni mu mel ma ku mënul yenu ku karaw nan la yonem réew c'était vraiment comme doomu bàjjen alors vraiment c'était pas c'était pas méchant ñu ñu doxal ko ba que jël alternance en 2000 c'était pas facile non plus ñu ñëw avec euh, Abdou Diouf vous avez vu Ablaye Wade comment il a traité Abdou Diouf bi mu mu demee def ko yónni waxin la rek defin la rek c'est de légance républicaine ma yónni dafa jëkk dem kër yaayam yónni nekk kaa am mu dem arrive maintenant celui qui est né en après bi mu ñëwee mu def benn législature le Sénégal day day sanctionné parfois day jàppale les victimes donc c'est on a parlé Ablaye Wade on a mu jàll ñëpp les gens avaient beaucoup d'espoir un jeune mais qu'est-ce qu'il a fait euh, Sall Macky Sall man quand je parle de Macky Sall sincèrement je me di mais kii fan la jànge parce que yow nga nekkoon sous l'ombre de Abdoulaye Wade mais war na la jariñ ni les gens disent que il a été ministre il a été président de l'Assemblée nationale et ça mais c'est comme s'il n'avait rien appris en tout cas bu jàngee lu mu jàng euh, euh, ni koy waxee des na mu jàng des na parce que sous l'ombre de Abdoulaye Wade nga ñëw def lii mu def te ñu naan di kooku naan moom moo ko def Mais c'est parce que c'est Abdelawad qui a tracé le chemin. Ça, je le dis euh, à son corps défendant. mais moom ci boppam man je me dis est-ce que kii tey bu ñu ko joxoon noonu san Abdoulaye Wade jaarul foofu yëpp comme ni ñu joxee ñoom ñoom euh, ñoom euh, Ousmane Sonko est-ce que moom dina def lii mu dina mën lii mu def man je trouve que Macky Sall c'est un cuune je te jure <laughs> Macky Sall lay cuune mënu parce que am na yoo xam ne soo ko defee yow nga ne woon da nga am ndombu tànk yi pendant douze ans nga ñëw finalité bi nekk lii ñëw mais tu te rends compte ce gars là ce qu'il a la jeunesse sénégalaise ah yow rey nañ leen à bout portant ñii ils ont été emprisonnés combien de milliers ñii ils ont été amputés c'est des c'est actuellement ñoom ñëpp ñu ngi euh, ay la ñu yor mais c'est un traumatisme euh, euh, au niveau de la jeunesse mais loolu man quand j'y pense je dis ce gars là am na loo xam ne sax ñu ma ko wax li ma xalaat ci moom mais yàlla def na mm-hmm. yàlla dimbali nañu mm-hmm. bi ñuy ñëwee il a parlé de discours ma yegg rek mm-hmm. discours boobu bu ko safatal parce que c'est à partir de ce discours et à partir de son profil lui de son intérêt lui peut-être il n'a pas on dit n'a il n'a pas de vécu administratif waaw man loolu la ñu wax mais pourtant il a été formé à la bonne école c'est pas n'importe quelle école l'école nationale d'administration je dis souvent que Voilà des gens qui ont été bien formatés. formatés. Ils vont s'adapter très rapidement, je vous le dis. Mm. Il n'y a pas plus, il n'y a pas plus, euh, euh, on ne va pas trouver des hommes d'État mieux que ces gens-là. Et tout ce qui entoure euh, euh Diomaye et euh, Ousmane Sonko, c'est des gens qui ont été formés à la bonne école. Et vous allez voir, man, je vous donne rendez-vous peut-être dans deux ans, trois ans, ils ont commencé à jeter les bases hein yéen a ngi dara nga wax nga ne euh, vous avez dit euh, il a reçu les artistes tout est aux arrêts c'est pas mon impression franchement parler tout est aux arrêts mais regardez ce qu'ils ont fait en quatre mois seulement les gens nous demandent de faire de faire de faire de l'irréalisable. mais mais peut-être euh, Michel ci ci beneen débat voilà. pour pour voilà pour revenir à. tout à fait très bien mhm. l'assemblée. je dis euh, nañu il faut que ñu accepter l'élégance parce que ñoom actuellement ils sont majoritaires mais ils sont nous nous sommes euh, dans l'opposition parlementaire mais nous avons euh, le suffrage des Sénégalais nous sommes nous avons la légitimité des Sénégalais nous avons la légalité avec nous ñoom ils ont l'assemblée la majorité parlementaire et tout le monde sait que suñ contrepartie à 99 pour i ils vont prendre l'autre l'autre l'autre l'autre posture mais par rapport ak seen majorité mën na par rapport à ça à la majorité. effectivement parce que mën na nekk je les appelle à la raison parce que xam nañu ñoom xam nañ ne la majorité ou se trouve la majorité le président am na ay am na ay euh, am na ay cuupa geenam su fekkee ne ñoom ne nañ gatsa gatsa mm. ah. ñan nee nañ on verra bien c'est à vous. Ah, c'est ñoo ko moom. mais ñoom tëddee ñu def. ñun nous les ceux qui sont ceux qui sont maintenant de l'autre côté et qui étaient qui avaient les rênes du pouvoir. Mm-hmm. ils disent nañ tamit gatsa gatsa. et ils l'ont au niveau de l'Assemblée nationale. moi je le dis nañu il faut savoir raison garder nañ jéem góor góorlu toog dans l'élégance républicaine ñu xam ne buñ ko deful du yomb ci ñoom. dina dañ foog ne du yomb ci ñun mais man je suis persuadé que ci ñoom lay gën a metti man kon nag nañ góorgóorlu mhm. ñu jéem a seet xam ne c'est une république sénégal c'est la république du Sénégal mhm. c'est le peuple sénégalais le peuple sénégalais adduna nee na kat ñii laa fi bëgg a teg mhm. mais nañ leen jàppale mu ñu def ñu xool léegi nag la ñuy def mais en quatre mois on ne peut pas quand même euh, faire li nga que ni dafa couronné wu de gatsa gatsa non gatsa gatsa non xaaral rek gatsa gatsa cooki c'est un c'est des langages c'est c'est de vilain langage pour man mm-hmm. nekkul lu ay autorité war a war a mm-hmm. notre langage non moom laa wax moom laa wax xam nga xam non jeexul parce que moom la wax récemment quand il a reçu les artistes ne carrément le combat on va descendre sur le terrain mhm. c'est ce qu'il a dit non cooki mooy lan il a dit il y avait un communiqué loo wax léegi léegi déglu ma rek cooki ah, mooy lan mais a mooy lan c'était un combat quand on était dans l'opposition nee nga nee nga xam nga et puis il nous a sauvés parce que non en plus de ça il faut vous rappeler une chose gis nga tey vous incarnez l'autorité. oui vous avez les forces de l'ordre a votre autorité. tey lu jóg ci réew mi les forces de l'ordre attendent à ce que vous donnez des ordres pour que ñu mën a sévir. Mhm. mais aujourd'hui hier. Mhm. hier quand il y a wax nga ko de deux mille vingt et mille vingt quatre amul lu Sonko dundul. lan moo ko waral. Mhm. lan moo ko waral obstruction à la loi il faut le dire. lan moo ko waral réew mi dafa amoon autorité muy président Macky Sall. réew mi am ay force de l'ordre ñu war a doxal ordre yi. Sonko amul problème ba deux mille vingt et lan moo indi problème mhm. moom moo am problème ak nit muy Adji Sarr. moom moo amaat problème ak nit muy euh, muy euh, le ministre euh, Mame Mbaye mhm. mais ci yooyu la yoon di séviru pour mën leen atte mais ku taxaw ne carrément du ma def li ngeen wax lii ma def laay wax parce que dañ ma bëgg fexeel. Mhm. yow sa sa conclusion tiré nga ko. sa conclusion tiire nga ko mooy yow dañ la bëgg a fexeel. léegi yow da ngay jël sa décision bopp yow yaay doxal sa yoonu bopp. Mm-hmm. mais loolu moo indi euh, buuxante ak xeex bu metti bi boo taxawee fi nga taxaw en tant que opposition en tant que citoyen. Mm-hmm. benn nit. nga taxaw ne lii ngay def. yoon ne la doo def lii lii laay def mais yoon day dal sa kaw ak ku mun di ànd ak yow day dal sa kaw. Mm-hmm. te aujourd'hui mm-hmm. foofu ngeen toll. Mm-hmm. voilà assemblée nationale. mais pour foofu. Euh, à l'assemblée Thiala pour conclure à l'assemblée ce qui va se passer c'est simple. foofu laa bëggoon ñëw parce que déjà ñuy ñuy wax. Michel moom wax na ko moom wax na ko. dama bëgg ñu ñëwaat rek. ci ci foofu laay foofu laay conclure damay tëj. moom wax na ko assemblée nationale ils sont minoritaires ñoom ñoo nekk ci opposition foofu jaayante doole la te yow yaa ngi may jaay doole noo ko mënee dinaa la won tamit ni ma la mënee ci assemblée sa loi bi ñëw du jàll li nga waroon njëkk a def mooy DPG ba pare wuyu si. alma rek voie référendaire bi nga xam ni wax nañ ni am na yenn kaay bu ko bind mënul ñàkk par rapport ak euh, dissolution bu ñaari institution yooyu nga xam ne dañu jugé que ni dañu budgétivore très